dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gii di réew mi quotidien l'observateur Vox di Sud Quotidien yéen kaay yëpp ñu xëy fekk fa Amadou Ba ministre bi nga xam ne moom lañ dénk mbirum affaires étrangères moom nag noppi gi nga xamante ni noppi woon nag daan na cay génn wax ne digganteem ak Macky Sall ak Picong Mballo gi nga xamante ni moom lañ say tudd la mu xamle ci réew mi quotidien ca wàll woowu nee na amul benn jafe-jafe ak Macky Sall ci gii di Vox Populi moom Amadou Ba mu fay leeral ne digganteem ak. Sonko nee na nag am na lu ko metti lool bi mu déggee ñu ne moom moo créé Ousmane Sonko ba pare moo financé li nga xam ne mooy ab campagne am nee na loolee dara amu ca wax na digganteem ak Moustapha Cissé Lo digganteem ak far Farba Senghor digganteem ak yaa xam Yakham Mbaye moom Amadou Ba ci yéen kaay gii di Sud Quotidien daan nay wax ci lu jëm ci franc CFA ak éco bi nga xamante ni moom moo koy daal di wuutu yéen kaay groupe promo consulting bi di Rewmi Quotidien moom Amadou Ba daan na fay wax ci débat bi nga xam ne moom mooy jóg jëm ci 2020 ak kan mooy wuutu Macky Sall nee na mbir la moo xamante ni warul intéressé sénégalais yi ndax li mu des dafa daal di bëri yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak vox populi ak laas mu dikkal ñu ci nag ñoo lànk ñoom nag ginnaaw tournée yi nga xamante ni ñoo ngi amal di seeti ay syndicat ak i leader politique tey ji nag dinañu daal di seeti njiitul Pastef di Ousmane Sonko fas waxtaan ak moom ci lu jëm ci courant bi nga xamante ni dañu koy yokk ak nees la def ba daal di koy ñoom tamit ñuy waajal seenu manifestation a kaay gii di réew mi quotidien ak vox raxasu ba set wecc ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum politique nee na Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides moo ko ko daal di bàyyiloo yéen a ginaaw gi ne ginnaaw maître Madické Niang Moustapha Cissé Lo moom nag daan nañu koy yóbbu retraite politique l'observateur Moustapha Cissé Lo dafa indi ay leeral moom nag la mu xam leen ne ne xalifa bi waxu ko mu bàyyi benn yoon politique waaye daf kaa tere nag muy xuloo ak piccoo ko mbaaloo ci lu jëm ci mbirum politique moom Moustapha Cissé Lo nee na nag dootuñu ko déggati muy songu kenn wala muy wax kenn nag su noonu yéen ñu fekk fa Aminata Touré mi nga xam ne moo jiite conseil économique social et environnemental moom nag daat nay wax ci Abdoul Mbaye di ko tontu la mu ne na Abdoul Mbaye jamono ji ab xolam ci boppam mooy pita gaz te li mu munul baal Macky sal mooy dàq gi nga xamante ni Macky Sall dàq woon na ko ko ca primature kër Momar Sarr foofee nag otob gendarmerie boo xamante ni dafa tegoon loxo ñett ñoo xam ne dañu doon yëngatu ci lu jëm ci mbirum drogue oto boobee nag dafa mujjee këpp ba benn gendarme ñàkk sa bakkanam am ñu bari ñoo xam ne am nañu sa ay gaañu gaañu ma ngi ci l'observateur naan ñu ren ji ci discours bi nga xamante ni Macky Sall dina ko def ci njeexantalu at bi dafa am ay coppite ndax ginnaaw discours boobee nag dana daal janoo ak taskatu xabaar yi maanaam ab conférence de tey ji nag dinañu daal di voté loi bi nga xamante ni moo jëm ci mbirum siif ak mbirum yàkkataana coppite yi nga xamante ni daal bëgg nañu ko sax daal di amal société civile bi ñoom nag tey ji danañu daal di dem ca pencum ndaw réew ma ngir nag amal fa ne moo jiite MEDES jiite promo li tax site bi def ko homme de l'année nee na ay qualité am yi nga xamante ni daal moom la ñëpp ràññee ci lu jëm ci mbirum jël dara yóbbu ko ba mu kawe loola ak taxawaay bi mu am ci secteur privé bi yéen a kaay sunu làmb ñu fekk fa Lac de Guiers numéro 2 leena la mu xam ne nag nee na jamono ji Eumeu Sène la soxla te Eumeu Sène daf koo amel ab bora journal bi di sunu làmb mu ñu xamal naa ñu ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci jëm ci mbirum politique ñoom nag am nañ xel mu rafet ne combat Modou Lo Ama Baldé dina daal di am commandant Thioune dalal ci xelu askan wi Max Mbargane la mu xamle nee na tëj gi nga xamante ni tëj nañ ko Luc Nicolaï ci kaso bi mën naa wàññi lu baree bari ci làmb ji